dañ yooyu dañ ko waroon eh, dañ ko waroon defar bu gën a mais loolu amul solo yàlla bi dana démb alors signalé nañ ma ne am na ay euh, localités yoo xam ne du fi ma voter mais feneen ay yeneen localité ay bureau yoo xam ne bulletin bi c'est-à-dire que photo bi doo ko gis photo bi boo gisee ñu c'est pour que ñoo xam

lu may wax rek am na loo xam ne yéen gis ngeen ko sax ci internet bi dégg naan dégg nañu ñun ñëpp que nguur gi gouvernement bi dañu programmer dañuy arrêté Barthélémy Dias mais loolu ci maa tey ci jaay doole te du moom kenn la ñu programmer programmer nañu dañuy jàppaat aussi Bougane Gueye Dany ak xaw ma kanati n'est-ce pas mais lolu ay ay ay ay provocation le comme niñ ko defee ci campagne bi yëpp di provoquer nit ñi donc lolu amul solo mais ñi ko ñi ñi ko wara exécuter nañu ku né fi Sénégal la boule a tourné yëfu soppé ku ñu plusieurs fois té li fi nekk tey dana mës soppé ku def mës a jógee. non du ma moromam yoo tam xool ma man may Jean Paul Diaz da nga personnellement. il est trop petit. voilà le temps que avant avant euh, commenter euh, propos